beurre bi ci vitamine yu bari la ñu àndal moom la Alphie di defaree euh, tey euh, on peut dire que salade ngay defar. parce salade salade parce que quand euh, wax naa la ko sànq salaat bi la plupart li koy parti luy. particularité salade bi mooy mm. la plupart des légumes yi ci nekk dañ ko togg paap mm-hmm. donc mu nekk benn salaat cedd boo xamante ne bokkul ak salade fraîcheur yi nga xamante ne da ngay jël légume bi consommé ko consommé ko noonu sans nga togg ko donc comme ni ñu koy defee tous les jours di ci ànd ak les boursoufia di di ci ànd ak euh, les Boursofia euh, ñoom ñi nga xamante ne Pape du ñu tàyyi du ñu sonn euh, mu nekk ay produits yoo xam ne c'est enrichi en produits laitiers te c'est riche en vitamine A e. nee naa la su demul ci cuisine bi dañ koy def suñu ay mburu ndékkee ko parce que dafa neex ci ndékki neex ci togg donc deux deux ans lay def soit nga teg ko ci table bi ngay ndékkee rek wala nga dugal ko ci waañ bi pour mën ko toggee donc comme ni ma la ko expliqué sànq am nañ fi ay pomme de terre yoo xamante ne dañ ko baxal mu nekk pomme de bi nga xamante ni Pape fii lañ ko jëndee ci ci réew mi fii lañ koy bayee am fi tamit haricot vert yoo xamante tam fii la saxee ak euh, carotte luy seen particularité ñoom tamit xam nga haricot euh, c'est riche en fibres te riche en fer tamit su fekkee da nga war a am ay apports yoo xam ne c'est pauvre en fer mën nañu utiliser tout ce qui est légumes verts particulièrement haricot vert yi nga xamante ne moom la ñu am fii carotte tamit riche en carotène pour bët yi nga xam ne ñi nga xam ne dañoo am ay ay problème mu bët pomme de terre euh, muy féculents yoo xamante ne dafa bokk ci sunu quotidien yi ñu war a consommer à part mburu ak ceeb mën nañu utiliser pomme de terre tey itam dañu ko décider baxal ko donc ñetti légumes la jël bu ci nekk ñu baxal ko séparément parce que tam il faut rappeler que su fekkee dañuy baxal ay légumes euh, bu ci nekk dañ ko war a baxal séparément séparément parce que bu ci nekk temps de cuisson am bokkul euh, pomme de terre li muy ñoree ak haricot ni muy ñoree carotte ni muy ñoree bokkul moo tax bu ci nekk dañ koy dañ koy séparer bu koy baxal Euh, bu ci nekk tam ñu réservé ko def ko ci saladier bi am naa fi itam nen nen yu ñu baxal riche en protéines moom tamit am naa ci ñett yoo xam ne dañ ko baxal dañ koy dagg ci kanam def ko ci ci mu dugg ci décoration bi maanaam bokk ci salade bi donc moom bokk na ci élément euh, nutritif yi nga xamante ni ñoo gën a complet maanaam aliments yi gën a complet muy nen am naa fi tamit thon mu ñëw euh, nekk ndawal bi nga xamante ni tam moom mooy nekk ci salade yi parce que yow wax nga di bëgguloo salade yoo xam ne ay légumes kese la il faut que muy am ay dog dama bëgg ndawal ba waaw ndawal gi nag tey ton lay nekk maanaam ton à à huile lekk ay ñax sax na amaale waaw na amaale na amaale ndawal daal waaw ay dog donc moo tax ma jël tey animaux il faut qu'il y ait des animaux. ma jël euh, j'adore les animaux de la mer. de la mer tey ñi ci ñi ci mer bi laaj les animaux bëgg animal. animal waaw moo tax tey ma andi. bëgg naa lekk yëpp di animal. ma andi ma ma andi ton bi rek. ma andi ton bi nga xamante ni moom it. c'est riche man ma bëgg mu am de la mer. de la mer waaw. crabe yoxoos yu kii muul ak yëpp ci biir. voilà et c'est des êtres. Ah, bien sûr te ñoom sax ñoo gën a ñoo gën a baax suñu yaram parce que xam nga thon bi ñu andi c'est riche en oméga 3. donc soo gisee li composé salade bi yëpp ak. Euh, euh, laitue bi en tant que tout à fait moom laa wax sànq. waaw poisson poisson bi tudd thon. merci. ñu jël ko def ko en conserve. loolu moo indi mburoog thon. mburoog thon. bokkul ak pinton bi nag. salade thon. waaw salade salade thon. voilà donc bokkul ak. au autant donc ñu jël ñu jël laitue bi maanaam euh, salaat bi nga xamante ni en tant que tel pour amener un peu de un peu de fraîcheur. Uh-huh. Euh, donc moom la ñu tas tasee ci plat bi pap donc li li am solo ci salade bi euh, mooy vinaigrette bi maanaam sauce ah. bi nga xamante ne mooy joxe gou parce que lii yëpp ñu li yëpp ñu cité su fekkee dañ ko lekk nii dafay dafay fàdd maanaam du am goût. mu am sa mu am. waaw du am saf safa waaw ah, il mu safe. foog mu safe safe. donc safe boobu nag moo tax ñu defar benn vinaigrette boo xam ne li koy composé dañ jël benn doomu laaj. Euh, ñaari kuddu vinaigre. Euh, benn kuddu moutarde bu mag. ak ñett jàpp ñeent kuddu ci dëwlin huile d'olive de préférence. def xorom waaw def xorom def poobar mu diwee mu diwee. donc mu diwee tam parce que il faut savoir que dëwlin itam yi ñuy yi ñuy consommé ci salade. ñorul ah. maanaam mooy diwlin yi nga xam ne ñorul te yooyu ñoo gën a baax ci suñu santé. Ah. parce que euh, dañuy utiliser ay euh, graisse mm. euh, insaturée maanaam yooyu ñooy graisse insaturée yoo xamante ni mm-hmm. suñu yaram daf koy soxla. Mm-hmm. donc dañuy essayer jël yi yëpp assembler ko maanaam. njëkkee vinaigrette bi. Mm-hmm. ci ci maanaam pomme de terre bi haricot bi ma cité léegi ak carotte bi. donc mën naa daa jël tam tuuti vinaigrette bi wis wisee ko ci salade bi tam pour bu ñu koy lekk mu am goût euh, fàtte naa wax persil bi pap parce que herbe aromatique yi tamit euh, dañuy servir quand même euh, dañuy andil une bonne digestion moom tam def naa ko ci biir vinaigrette bi ba pare sànni ko tamit ci biir légumes yi donc on va mélanger le tout pap def ko ci kaw salaat bi suñu paree dagg nen yi olive yi olive noire yi ak ton bi tam ñëw ne ñëw nekk ci kaw juste le temps. da ngay tëdd et puis salade salade dafay euh, dafay joxe appétit ça je l'ai appris euh, quelque part. Ah. Euh, Hollande par exemple ñoom bu ñu lekkee ba pare astafurlah dafay tax nga digérer ñun on a tendance à ci ay entrées la ñuy lekkee salade. Mhm. mais moi j'ai vu là-bas bu ñu lekkee ba seen biir fees dañ ciy teg salade. paraît-il que ça permet de digérer. il paraît que ñoom sorti sorti lañ koy def. comme ñun ni ko defee entrée. waaw donc donc donc. <laughs> dëgg la ko def de ñun entrée dañ ko def mais ñoom dañu ko def sorti parce que paraît bu sa biir feesee sax boo lekkee salade ça te de digérer c'est vrai ça Alfie oui oui parce que euh, légumes yi la plupart ci légumes yi dafay dafay favoriser maanaam digestion bu yomb maanaam du ay légumes yoo xamante ne daf lay mhm. comme la dernière fois maa ngi wax booy lekk ceebu jën paap da war a jël sa salade teg ko ci côté bi ah donc loolu daf lay ceebu jën bi bañ a lourd bañ Ah, donc daf lay permettre biir bi day ibbeeku mais da ngay dina ubbeeku tamit te boo paree di nga digérer facilement donc ah, nga léeg-léeg nga añee ceebu di nga ngénte Mouhamed Ndiaye bi euh, na xam nga diggante Mbour ak ñu am foofu ay problème waaye entre gare euh, dans la brousse euh, waaw ñooñu ñooy ñii di dem ngénte Pape lu ne ñu lekk ko lu ne ñu naan ko jaxase ko. oui oui. te xam naa ngeen Mohamed Ndiaye ma xam nga day bëri bagage. il faut faire très attention <laughs> merci Alfie.